sëriñ sëriñ si Ahmadou Mbacke xalifab sëriñ Saliou nu jëlaatub nuyoo nag sun sang su baax sii ne ci sun kanam nga xam ne seeni cër yàlla moo leen ko garanteel jox leen ko ñuy setti sëriñ tubaa nga xam ne yeyoo nañ fu ñu nee ne ca kanam yeyoo nañ fu ñu ne ñu sukkal leen yeyoo nañ fu ñu nekk ñu raamal leen noo leen di nuyu lu bare bari di leen sant te di leen gërëm tey sàkku nag seenu ñaan di ko soxla di nuyu nag képp ku teew ci jataay bi ngay góor di jigéen di mag di ndaw ràññat léegi du yomb boo xamee ne tafsil jafe na ijmal la ñuy def waaye nag dafa am tuuti loo xam ni lu waxtaan wi gàtt-gàtt danaa leen ko leeral man baaxoo maa dox benn jéego te amuma ndigalal sëriñ bi damay baagante di dem ak dikk di dem ak dikk di dem ak dikk ba mu yëg ko xam li ñuy def xamin wa nag dafa maa neex lool ndax la mu ma neexe mooy dafa mel ni am na fu mu teg sëriñ Abdou Lahad Ka am na yërmande jum ko ëmbal am na cofeel gum ko dencal ba day mel ni bu fekkoon ni fekku ko woon a xaw a am xat-xat da koy woo jataayoo ak moom sëriñ Abdou Lahad doon koo xam ni fa mu féete kër sëriñ Abdou Lahad la féete kër sëriñ Saliou kër yi sëriñ si yëpp nag te kilifa yi nde ca meere ba di sëtti sëriñ tubaa teew fii wane na loolu sun borom dogal na jataay bi du kumpaam ba ci barab bii nga xëyante fi laa ko defee di barab bu sëriñ Saliou Dieng mii fi nga xamante ne bii lii ñuy yéenee def xëy na ñoom ñi nga xamante yi ñoo yor loolu ñoo ko yéene fekkoon nañ mu njëkkoon a doon yéeneen ndax man day woonoo bis ni ma dama bëgg a seeti dongay ca Mawahibou mu woo sëriñ Bachir mu sëriñ Abdou Khadir maa jiitoog sa xamaa waxta li leen yoon wi ba ma jógee Touba Mosquée wut si jannatu mu ni ma foo jëm ma ni ko ma waxi bi na yoon wi dëng na di ba ma ñëwee ba fi maaw ci 30 bii bañ demee ba ma wax yu ba fa jógee ñu wëlbatiku jaar boori saam jaar ci yoon wi jëm si ci hôpital bi ndax foofee dafa am jumaa jum waroon a gis muy man di donga yi nekk mu waaxe bu tabari ci jataay bi ñëpp lañ sante woon keroog mooy ndéem sëñ bi jaar na ci yoon wi di sama sa dem ba tëli ko kon nag maire ak i conseil ak i addu ci lu baax rek lañ leen xame ci lañ di xëyee ko gont waaye lu baax la day tey andi nañ ko jannatu fekk nañ fi waa jannatu jannatu nag ñi fi dëkke bari na waaye koñ boo dem benn bopp la la ko def benn bopp mooy kilifa ga yoon koñ ba rek la ñuy déglu kon alhamdulilahi rabbil alamin bi nga xamee ni li ngeen jëf ku xam sëriñ saaliwu tam daa la doxloo ci dëkk bi xam nga ni mbedd mi nattu naka nattuluwaat ko ba mat ñetti yoon kon yéen bu ngeen doon làmbatu it day mel ni daje ngeen ak njum ga daje ngeen ak njum ga njum ga nag dañ daa wax koy fett fa fett nga war a jam bu fa dalee loolee ak njum kon ci barkeb sëriñ saaliwu mi nu amul ku dul moom ab barkeb sëriñ Cheikh saaliwu dañuy ñaan seen jëf jii suñ borom defal leen ci ndimbal ba mu àgg fa ngeen ko bëggee te xam nañ ne ñu yaatu ak làng ngeen ndax dëkk bi jàpp leen benn koñ bàyyi benn yëpp ngeen maasale te bu dëgg dee dëgg rek ku xool te gisu seen jëf ab jëfam neexut seeni jëf itam saa su mbooloo mi dajee di fukki nit juróom-ñaar ñëpp dana leen leer kon loolu ndam la ci yéen waa commune bi ndam la ci Serigne Abdou Lahad Ka ndam la ci conseil yi ndam la ci adduction yi seen ndam loolu yàlla na leen ko suñu sàmmal waaye ak si fii ci jànnatu toog ci tarant bii ñuy xalaat yoon wu ñuulu fi aw lool de ku ko andi ci koñ bi andi nga fi lu rëy andi na fi loo xam ne mën na noo waat ni mbégtem sëriñ Cheikh la mën na noo waat ni mbégtem sëriñ Saliou mën na noo waat ni mbégtem waa koñ bi la kon yàlla na àgg ak jàmm ba ngeen sosaat yeneen xam naa sax yéena a ma gën a xam village bi waaye 30 bii nga xam ne fi la jàndatu tàmbalee boo doxee tuuti da ngay gisaat beneen 30 nga doxaat tuuti tegaat ci beneen doxaat tuuti tegaat ci beneen te 30 yooyu benn bu ci ne dafa tàmbalee ci tëli njuga bi ba fa jàndatu yem jàddut fenn amul benn dëng-dëng kon yéen li ngeen tàmbalee yàlla na àgg waaye bu àggee yàlla na ngeen sofaat ndax yeneen liggéey ngi fi yu nu leen di séenoo te sama kàddu mënuma koo daaneel te béraluma ak cant lool ak i ngërëm ak i ñaan kilifa yu baax yi toog di leen ñaanal ñu ànd ak seen sago te ànd ak wér te sun borom defal leen seenu bëgg ndax nun kat buñ bëggut lu may sëriñ bi ñoom ñooy sëriñ bi nun nag loo ko bëgg bëgg mu gën laa bëgg boppam kon taalibe gën war a dundee dañ leen ci roy yéen waaye nag noo ngi yóbbante sun kàddu yalwaani bopp ci Abdou Lahad Kane bi mu xam ni jennatuma ma waaye lii muy xalaat mu jëm si fi ñoo ngi koy taatan ak xol bu sedd te la ca nag moo nekk ci mawaahibu te xam ni distance bi soree na waaye nag sëriñ Touba moom la Serigne Abdoulaye waxoon rek ku ko defal loo man mu defal la loo mënut ku ko defal loo mënut mu defal la lu jomb te it waaye def ci dëkk bi addiya la wax nag la bari loo xam ne dama daa wax ne léeg-léeg bu nit yi wax fa wax ja sosoo na koy wax am na kàddu goo xam ne ku wax te néewoo Serigne Saliou nee na juum nga Serigne Saliou dafa wax ne Serigne Touba nee na bokk ne ci li addiye di jëriñ ab taalube fu dara nekkul mu def ko fa fu lu néew nekk mu baril ko fu lu bari nekk mu barkeel ko te yett yooyu kat bëgg nañ ko lool yàlla nan ko suñu borom wërsëgal noo ngi joxaati cant ki ngërëm na kilifa yi fi teew damaa mënta tudd tur wala tur waaye li ci sëñ Mor Lo defoon doy na waaye daal kàddu nu yoogu sel daal noo ngi koy jagleel sëriñ Abdou Lahad Ka te di ko jaajëfal te di ko kañ tey seenu sunu jàppale ko ba jëf jii bañ a ay weer ak i weeraat sëriñ Abdou waxoon na ni kuy seen wut fekk suba la ngay wax boo ko tëree ci programme dut la mën a dégg kon nag wasalaamaaleykum wa rahmatullah barke Abdou wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk jullit yi mbokk taalibe yi maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam sant ñëpp nag jiital ci cant gi Serigne Mouhamadou Mountakha di ci teg sëriñ Cheikh mu sëriñ Saliou cant gu moo xëy am na fu mu tàmbalee waaye nga fu mu ah, cant gépp it nag kenn nag moom mooy Cheikh Saliou ñu nag dañoo xaw a dina xam la wax dina xamul duñ ko alhamdulilah rek la ñax ci yoon wi quatre yoon douze Cheikh Saliou sàkk wan yoon wi ñu tëli ko. ñu tëli ko 92. booba bi mu koy sàkku tëli yu néew fi lool ndax booba yoonu jant mama gii moo fi nekk yu njógoo kee ba tegan ak korniis bii fi si yëpp laa defal xëy na dara ci yoonu seen njógoo kee bii ba ci yoonu Daaru Musti lu xeetoog tëli amu fi. te dale ci yoonu Daaru Musti ba ci yoon Tuubaa Belel lu xeetoog tali amu fi nga wër nag ba dëkk bi nag tër yi bari lool fekk na sëñ bi sàkk wan na ko sàkk gi ko sàkk it noonu jàpp nañ ne moo gëm moo gën ndax moom li ñuy wax duñ ci xareer sëñ Saliou lum santaan lu man la lum ñaan lu xam ba noppi la du ma ci xareer moom loolu laay wax sëñ Saliou lum santaan lu man la lum ñaan lu xam ba noppi la maanaam santaane gi man gi moo ngi ci mu ngi ci nga fasoo ko boo ko fasoo foo dem fekk foo dem caari ñaan ngir booy gëm di ko gis loolu maanaam mëneesu ko ñàkk wax dafa xat te dafa guddi waaye kon naan si wax yu bare baree bare ndax fii nu toog ba ca cent vingt boo ko doon teet dana jege dix kilomètres ci lépp maanaam moo ko natt joxe ko boo génne njëriñ ma xawaa gii génn bàyyi faal gi fukki palaa fi natt def ko trente six quartier mu vingt sept mille cinq cent douze parcelles mu joxe ko joxe du sell ñaar téeméer lañ doon laaj bañ koy joxe ñi dem bay laaj ñeent téeméer trois mille ci lañu mujj te kër yooyu mu doon joxe wax dëgg yàlla ñëpp ki sant ndax kër bu ñu ko joxee ci trois mille francs nga dem ba ko jaay dix millions bu xat la am amul feneen nañu wër nag maanaam fii doon foo xëy ni sëñ Saliou dëxëñ na fi loo xëy dëxëñu ko fenn nag man mënu wax dëgg yee te dee daa koy wax ndax turi quartier yi neex yii yu rafet yii sëñ Saliou moo ko fendi amul benn quartier booy wër fekk ba turi yu mel nii pour maanaam fi nat sëñ Saliou bi man nañoo gën a sori ndax mën ngaa dem ba kër sëñ bu soobee sa kër sëñ Thierno Bousso plan boobu lañ njëkk liggéey muy deux mille huit cent huit parcelles nu jóge fa tabbi Touba Ndiarème muy huit mille huit cent quatre ñu defar ndaam alim alimul xabir sëñ Saliou defar woon na ko ci kanam ndaam gi boo ko seetee la dalee sëñ Thierno Bousso ba ca Rompaye ba dix-sept mille neuf cent ko parcelles alhamdulilah nga xëy rafet nan njort ne lii sëñ Saliou sant lii sëñ Saliou santaane woon ku ci laal jàpp naa sa aajo mën naa fa ju say rek bett na nan yàlla bu baax a baax nag ndax li muy yaatu yaatu amul ci benn boro nag waaw loolu tawfiix sëñ Saliou la man ba ma ko sañan dama naa di li ma sëñ Saliou defal dimbalu ko kenn ndax néew na ci askan wi ki yor trente quelques mille par te moo ci génn kër loolu sëñ Saliou moom ko defal kon dañ koy ñaanal bu baax a baax suñu borom dool leeram sëriñ Salif la miit alhamdulilah lañ wax man sama sëriñ la maam la man na maam ñoo ko bokk ab daal la buri faal Sénégal gépp ku ci bokkut ak moom dëkk ko ab daal buri faal moo tax ñu ngaañax moo tax ñu ne ko moom mi ngi taal sëriñ Touba soxna soxna Faatija soxna jaturi mi ko jur omaani mi ab daal laa ab buri faal boo demee ba ci mbaakol sëñ mu dax sa maam car la boo xëy ni noppi naa mi daal soxna sa sëriñ mi Abdallah moo jur Omaana Omaana meñu sun maam Modou Mandoumbe maar Syll Anta Touré mi ko meññ càqami la waree dem Taïba Taïba xëy Taïba Ndakaar Taïba Ndaw bi Syll maanaam Abdallah moo leen Abdallah nag bi saabu ndogalee maanaam bu jógee ngaañax dafa ñëw sanc ndogal demaa dëkk bu naa tedd kër jël fa soxna naan taxuma am ca Masaara Ndoxuma bu yaa Ndoxuma ma Kota Ndoxuma Saliou mii ma Kota Ndoxuma moo ko meññ am na ko nekk ci commune bi ñu naan ko Moussa Diagne moo ko Saliou ñoo bokk benn maam benn maam ñoo ko bokk dafa xat waaye daal sant na daal cant goo am na fu mu tàmbali woon fi ñëw ñu ngi jégalu maaraay yi ngeen jégal ma sant la ma daa wax ba tey maa ngi wax maa sàkk ci dama daa wax naan képp ku nekk Tuubaa te bëgg cër ñett da nga leen cër mbaa boo leen joxu cër ki sant Mbàkke danga koy jox cër gi Sëriñ Tuubaa ki sant Buur danga koy jox cër gi sunu maam Jaara tërbiya danga koy jox cër ne tërbiya moo tax leen jërë ngeen jëf waroon na ñëw teewee daje bii ndax daje bu mu jox solo la waaye yàlla def mu am ngànt loo xam ne nii mënut a ñëw moo tax mu ne mën naa ànd ak sama sëriñ si ay adjoint au maire ngi ci lim nañ leen léegi temps bi gàtt na kon du ma jaaraat seeni ak euh, administration communale bi ñi nga xam ne ñi ñoo liggéey bi ànd ko PAPSA di leen wax ne monsieur le maire moom daje bi moom dong moo ko bëgg na taxawal boppam waaye nag yàlla da ngay bëgg ak la muy dogal kon li ma ñu fiy wax fii na ngeen jàpp ne bu baaxee jub loolu moom yàlla la waaye bu fekkente ne am na loo xam ne li sooxee na ci ngeen xam ne loolu tamit du luñ ci jublu waaye xëy na de sans mooy defe noonu di nuyu nag ñun fi fekk ñëpp gannaaw bi ñu ziare suñ mbokk yi nga xam ne nii ñoom ñëpp dagg ne seen i itte ndax lim bi du mën a nekk kon kenn ku ci nekk ñu ngi lay sant di la gërëm ci turu monsieur le maire Abdou Lahad mi nga xam ne moo ñu fi yebal moom coful bis bi ndax li ci waroon lépp def na ko jaar na fi mu war a jaar waxtaan naa ñi mu war a waxtaanal yebal na ñi mu war a yebal projet bi nga xam ne moo tax mu ñëw fii tey sëñ Mor Lo modérateur wax na ko waxin wu leer woo xam ne nii defe naa ne yéen ñëpp dégg ngeen ko kon mooy yéene ji di nuyu nag di ziare nag suma suma kilifa yoo xam ne yi mënumaa ñàkk tudd seen tur muy sëñ Matar Jaxate ak sëñ musaa Niang ndax ñooñu ak sëñ Sall Sylla ndax ñooñu dañuy ñi nga xam ne nii ñoonu teete ci biir kër liggéeyub Serigne saalu bi kon ñu ngi leen di ñoom tamit di nuyu bu baax di leen jox seen wàccuwaay xam naa maire yéene ji mu ci dëkk bi sëñ Mor Lo na ko bari na yu mu fi yu mu fi wax ci ay réalisation yoo xam ne nii maire yi baa ngi koy liggéey loolu nag lu mu ci def moom xeet na ko yoon wi nga xam ne nii tey jii mairie bi dafa jël responsabilité ne daf ko bëgg a taxawal ànd kook ñi mu ko war a àndal su fekkonte ne tey lépp daa yembu mën ngeen a jàpp ne euh, liggéey bi doxalin ni moo koy yàggal waaye du doon financement bi waaye nag nañ jàppale ci suñ xol ak ci suñu xel ne yéene ji am nañ ko ñi ngi koy dox am nañ ci yaakaar te yi tamit lu ci bari bari am na ci loo xam ne tàbbi na kon nag da ngeen xam ne moom lii def na ko muy priorité te yemul fii ndax am na yeneen yoon yoo xam ne it yu gàtt la yoo xam ne suñu leen lënkalee jàpp na ne population bi seen i jafeñ-jafeñ ci biir ci biir nawet bi rawatina ak ndox yi taa mën naa am yooyu suñ ko lënkalee def ko ay tali loola bu soobee yàlla dina doon ay solution ci problème yi nga xam ne nii nit ñaa ngi jàppanteeg moom. kon moom wax na ne li mu bëgg rek mooy nit ñi jàppale ko ci xalaatam boobu mu ndax population. kenn da ko war te jiitu ci jàppale maire ndax dooley jën ndox kon su fekkente ne population bi ñoom xam nañ ne lii ñuy def ci ñoom rek la jëm ci ñoom rek lañ koy defal ñoom it nañ fexe ba ràññaatle bu baax fi nga xam ne fii moom lañ war a jàpp jëmale ko ci commune bi liggéey bi bu ko defee mu mën a dox ndax bu boobaa ressources yi dana doy loolu ku nekk chef de quartier yi délégué de quartier yi autorités religieuses yi kenn ku nekk war nga cee dox sa say say jéego ndax ab dëkk buñ ko bokkee kenn ku nekk dafa war a def wàllam yéene jii am nañ ko feneen kon nag nañu gën a góorlu jàppale ko ci liggéey bi te ñaan sa borom àggale ko jën fekk kook jàmm bañ def yeneen sos ngeen ñaanal nag monsieur le maire bu baax ndax xam naa ne ngant moo ko teree ñëw waaye su fekkonte ne moom mënoon na ko ci amuloon ngant loolu moom mooy ñëw teewal boppam waxtu wi nag jege na timis yi te fii ay sëriñ rek fi toog kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci turu monsieur le maire Abdou Lahad wax na ñaan leen yéen ñëpp ndax projet bii nga xam ne moom mooy yéeneem sa borom sottal ko ceen taal ko yooyu ko parce que sëriñ Touba jërëjëf euh, cee am ci yéene lool yàlla dogal mu bëggoon a ñëwal boppam ci eh, daje bi am ngant moo ma yebal pour ma ñëw euh, teewal ko fi ci illa ji nga xam ne ji mooy yoon wii nga xam ne mooy 30 bi teqale maanaam bi bi bi dox ci diggante jànnatul maxwaa ak euh, Madiana mu doon yoon woo xam ne dañ koy jima fexe ba ñuulal ko defar fi tànk loolu mooy sababab sunu woote bi loolu nag li ko waral dañoo am ay euh, ñoo xam ne nii dañuy ànd ak ñun di liggéey di ñu jàppale ci sunu liggéey te di ñu nat euh, dafa am ay charte yoo xam ne dañu ko teg muy le PACASEN projet PACASEN PACASEN moom projet d'appui aux commune du Sénégal la bu ko defee dañoo doon ay partenaires yoo xam ne nii banque a ngi ci fo fonds européen mi ngi ci ak plus maintenant la contribution de la commune ñooñu ñoo ñuy jàppale waaye nag dañoo teg ci ay chartes yoo xam ne dañ ko war di matale pour que ñoom seen ndimbal mën di ñëw bokk bokk na ci benn bi pej jii nga xam ne moom la ñuy wax RPI di réunion publique d'information donc commune bi dafa war ci plan triennal am li nga xam ne ni li moom la waajal ne da koy def ci biir ab commune am bu koy def mu dem ba ca fa mu koy defee woo population bi mu ñëw ñu xam ne lii ñu leen defal ci ñoom la jëm su ko defee ñoom tamit ñu xam ne dañ cee war a am engagement jàpp ci dara du doon euh, lu leen bett ci biir liggéey boobu bu ko defee fekk préparé nañ population yi waaw xam naa ki doon wax poste de santé daf la bëgg a waxoon daf la a wax ne ak PACASEN boobu defar nañ fi ay poste de santé loolu la la jubloo a wax ñu fi nii nag benn projet phare bi nga xam ne moom la ñu yor léegi mooy projet yoon bii nga xam ne mooy tàmbale ci euh, tali tali Ndiouga Kébé doon 30 bi wuti ba pak dongo yi ñuy wax mooy bu bu seen xam ne loolu nag la distance bu gudd la foofu nag moom mooy suñu suñu suñu projet phare ci lañ jublu li li li li liy waajtaay nag mooy ñun ñu fexe ba rek partenaires yi nga xam ne ñoom la ñu àndal li nga xam ne loolu lañ bëgg commune bi am compétence yooyu doxal ay ay ay ay ay charte yoo xam ne teg na ko ñun ñu wàccoog loolu sa borom dogal na ren commune nu Touba Mosquée moo jiitu ci commune yi nga xam ne élire nañ leen au PACASEN kon nag loolu cant la loolu monsieur le maire mi nga wax ne rek déjà rek am nañ enveloppe bu am solo boo xam ne bi li tax ñu décroché ko ren mooy li ñu dëppoo ak loolee nga xam ne ñoom bëggoon nañ ko ñun ñu war koo doxe ñu doxe noonu exactement am zéro faute waaw xam nga fi ne nii boo seetlee euh, projet Touba Touba dafa yaatu li fi war dafa li fi war dafa bëri donc assainissement bi ku ne xam ne ne am na am na am na am na ay problème waaye loolu c'est des investissements lourds loolu état moom moo ci war a taxaw ndax dafa am loo xam ne li ñun actan nañ ko war nañ ko mën a def mais am na loo xam ne li ñun wàcc nañu lu mel ni tali bi nii fi mu ne nii ñun sunu budget yëpp buñ ko jëloon def ko ci benn tali bi duñ ci génn donc fi ne ñu ngi ci yeneen projet yoo xam ne assainissement santé santé bi li ci def bari na waaye doyutu parce que duñ sañoon quartier bu nekk boo lambee daj sa dispensaire ci sa wet sa sañoon tamit euh, quartier bu ne boo xoolee xool sa hôpital ci sa wet ko defee faju bi gën a waaye nag comme déjà am nañ benn am na ñaar am na ñett war nañoo jàpp ne ci kanam incha allah yeneen dana ñëw